waa gaa yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay eh, defoon naa benn eh, vidéo léegi ci tiktok bi eh, xam naa ñu bari ci yéen ñu ko gisul après vous allez prendre le temps pour ngeen dem xooli ko mais dama am loo xam ne moom laa bëggoon indi rek te du gudd nag waaye incha allahu rabbi dinañu fexe mu précise manam li américain di wax dinañ ko préciser it's gonna be precise manam dinañu fexé li nga xamné bëgg nañ ko cee wax yépp inshallah rabbi ngeen jot ci voilà donc euh, <coughs> dañuy ñëwaat tuuti rek ci waji ji euh ñuy nuyu ñëpp nak de passage waye bala may ñëw ci waji bëgg na laal ñaari patch yu ndaw

dañuy bëgg a vraiment euh, ñun ñëpp ñu daal di ànd ci benn lancé waaye gis nañu vraiment bindi te bind euh, du dictature nak waaye on veut seulement dire que comme ñun ci gatsa gatsa lañuy dox dañuy bëgg toujours bu nit défé dara rek ñu dal ci kawam waye comme dañoo bokk F24 dañuy moytu baña a dalante ci kaw donc bàyyi leen xel yi ngeen di bind parce que yenn saay c'est un manque de respect aussi pour la population sénégalaise ndax mënoo nekk ci ab réew ñu lay noot di noot sa ndey di noot sa baay di sàcc alalu réew mi yëpp di ko paacoo mu doon benn xeet benn gang léegi nga ne kenn lu ci wax xale yi bu ñu waxee euh, jeunesse su sénégalaise majorité bi c'est des amin population sénégalaise la majorité est jeune defe naa yow yaam ma gën a xam euh, nombre bi donc yaakaar naa toujours boo leen di wax rek dee leen bàyyi xel comme ça nit ñi doo leen leen yeggal foo xam ne dinañu bëgg a wax loo xam ne euh, vraiment day metti ci ñëpp donc euh, boobu avertissement la woon rek xam naa di nga ko dégg mais comme ci kaw nga waxee moo tax ma avertir la ci kaw ngeen bàyyi loolu xel ko comme ñun ñëpp dañoo ànd ñu bëgg euh, daan Macky nañu concentré wu ci loolu ñun ñëpp ñu def benn force benn say bul ci xool ne da ko bandum nag dégg nga bul ko def ay affaire u xeet nañu concentré wu ci Sénégal ñun ñëpp rek incha allahu rabbi ñu dans di xeex Nous bi ñu am ci ndam léegi loolu benn la deux ma ñëw ci euh, suñu international les football les footballeurs sénégalais vous faites partie de la population sénégalaise boo ñëwee Amérique vous gis nga Amérique si fi bëggoon def injustice c'est les sportifs américains qui vont être à la tête du combat Nous ñooy jiitu du combat nous ñoom ñooy jiite ci kanam donc nous, gis nañu que Uh, may len ma une minute allo aha uh-huh. Ama outside I'm uh, I'm on the dama live. ci live voilà donc euh, maya gali donc footballeur sénégalais yi ay jambar ngeen ndax wax deug yalla yena ngi def liggéey bu jaggi dayo te ñu xam leen nak lool te ñu xam ay nitu Macky Sall yu nekk ak yéen ñuy ay jeunes ma xam benn nit bu jege Macky Sall trop mu influent té xamna naa day wax lo nit lu ne da lay bind lo lu ne ndax man xam naa ko sama way la c'est un délinquant je le connais c'est un bandit man xam naa ko donc arrêtez de vous prononcer au côté négatif si vous ne pouvez pas être avec le peuple fermez vos bouchons moo gën di peuple sénégalais comme comme l'a fait notre gouvernement. notre gouvernement a volé des terrains de truie ñu jox len ko complicité Il n'y ne pat jël terrain est-ce que xam un terrain yoy wa Ngor lañ ko nangu terrain c'est des terrains de truie jox mais nous, avons dara nous, nous on vous a laissé tranquille si vous ne pouvez pas être aux côtés de la population, laissez la population sénégalaise tranquille. Ne soyez pas comme votre Eladjouf, le soulard là. L'ancien Eladjouf. Je ne parle même pas d'Eladjouf avocat, mais Eladjouf footballeur. Samuel Eto est en train de faire la différence dans son pays. je suis que président fédération football camerounaise de Goulol, ci Tu ci côté football Yen Restez aux côtés du sport et aux côtés du peuple si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, de problème. Mais voilà on vous laisse tranquille vous nous laissez tranquille vous nous laissez combattre et protéger notre population parce que dans tous les pays du monde c'est les sportifs qui sortent et défendent leur population parce que vous défendez vos comptes bancaires hein. Donc, vous pouvez bien sortir et défendre vos populations. Parce que vous, vous êtes des internationaux. Quand tu es en Europe jouer ou tu es en Asie, Je vais vous donner l'exemple d'un footballeur, un, basketteur turc. C'est un basketteur turc. Son nom est sorti de ma tête. l'a Mais lui, il a fait face à Erdogan et contre la dictature de Erdogan. Il est banni du Turc, Amoul problème. Il a pris la nationalité américaine et c'est un Turc. Et il se bat toujours pour son pays. Masha'Allah. Il est aux côtés du peuple turc. Et vous, vous avez décidé que peut-être vous ne serez pas aux côtés du peuple sénégalais, mais vous allez manipuler avec Macky Sall. Ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas. Cette jeunesse est consciente on ne veut pas que la jeunesse sénégalaise commence à vous attaquer on ne veut pas on ne veut pas que la jeunesse sénégalaise commence à vous attaquer euh, Siri who's the Turkish player that plays NBA in America that Erdogan banned from going back to Turkey Who's the Turkish basketball player that plays in America? The Turkish basketball player that plays in America. Here's what I May 8, ma sama téléphone bi dafa connecté ci kii bi téléphone bi dafa connecté ci oto bi. non c'est pas Hakan Şükür voilà Enes Kanter thank you so much Papi Konaté Enes Kanter gis nga Enes Kanter dafa taxaw def face ak dictature Erdogan ñu banir ko Erdogan dafa bëggoon ñu extrader ko indi ko Turquie mu dal ci kawam américains yi bañ ñu jox ko kayit mi ngi Amérique di la population turque he speaks against the dictatorship of Erdogan Yen les footballeurs sénégalais vous avez choisi vos millions et vos milliards Axel seen oto yi ay star Nek xaritu waykat Nek nekk ci xale yu jigéen ci yombe alhamdulillah yal na yalla yàlla comme Yen ak ñuy indil ay ay ay coupe Sénégal Y'en ak ñuy ndam on va continuer à vous encourager nous on est vos frères Amna un footballeur aussi bu ko def Iran moom tamit defe il a été renvoyé avec sa famille donc réew aduna partout les internationaux se sont mis face à la dictature de leur président et être avec la population. Vous, Macky Sall, vous a infiltré. Parce que je connais le jeune, elle, il est avec vous. Il y a d'autres. Macky Sall, de fait, la fédération football, m'a intéressé à Kharitam, à jeunes. Le jeune qui vous parle là, le jeune que vous, qui voyage partout avec vous là, il est avec Macky Sall qui vous fait parler et écrire là, il est avec Macky Sall. C'est Macky Sall, il travaille pour Macky Sall. On connaît tout. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Le peuple a besoin de soutien. Le peuple n'a pas besoin de manipulation en ce moment. Vous connaissez d'où vient l'injustice. Parce que c'est une seule personne qui a les balles réelles qui tire sur sa population. Et, cette personne n'est pas la population. La population ne tire pas sur elle-même. Vous voyez ce qui se passe en Gore, là où on vous a donné les terrains là. Ils ont versé beaucoup de sang et tué les populations de Gore à cause de vol de terrain. Et vous savez tout. S'il vous plaît, l'équipe nationale sénégalaise, on vous aime et on vous estime énormément. Je suis un fan de football. Mais arrêtez avec ça. Sinon, on fera face. On va commencer à faire la guerre avec vous. Et le football sénégalais va aller en couille. Arrêtez avec ça. Bailen, arrêtez. Arrêtez la manipulation. Le seul manipulateur, le seul dictateur, le seul impoli, le seul voleur, c'est Macky Sall. Et vous le connaissez. Si vous ne pouvez pas dire la vérité là, il faut vraiment rien dire. Surtout euh, mon frère, euh, j'ai vu deux. J'ai vu, je vois Abdul Diallo et Koulibaly, Koulibaly, voilà. Donc Koulibaly, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Ne vous mêlez pas dans la politique sénégalaise. Si vous n'en si connaissez rien, ne vous en mêlez pas. Parce que nous, on a un tyran devant nous, un dictateur, des voleurs, beaucoup, et vous voyagez avec eux. Vous voyez les jeunes de Macky Sall que vous voyagez avec là, c'est des voleurs. On les connaît. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec la manipulation et euh, vraiment essayer de marcher dans nos têtes là arrêtez voilà gars yi ma ñëw euh, ci réalité bi nga xam ne moom moo xew suñu dëkk damay d'abord ci ben extrait bu euh, rassurez-vous gis naa waa kër ñàkk fabriquer ndeysaan fabriqué nañu affaire voilà euh, mu nekk ñu ñu travailler benn affaire benn vidéo gis muy circuler audio la vidéo la xaw ma ñoom ñoo ba mu rafet daal def ci sama photo def ci photo Ousmane Sonko ñu ne euh, Ousmane Tounkara defe naa a abandonné Ousmane Sonko ça fait rire parce que fake bi sax ndeysaan du fake bu baax képp ku ma xam rek boo ko dégloo Dinga comprendre très rapidement que cela, ceci n'a rien à voir avec Ousmane Tounkara waaye continuer leen rek yéen ci lancé bi ñu nekk dañoo jaaxle suñu mbokk yi dañoo jaaxle bu baax a baax a baax a baax dañoo nekk ci ay difficultés yu metti donc moo vraiment ñuy wax waxu dof comprendre euh, ma jox leen rek footballeur yi ma jox leen exemple benn patriote ngeen xool xale bu jigéen bii elle semble une soldat américaine elle semble mais ko déglu leen yàlla kër qui fait mal ma déglu loo leen ko après ma continuer ñëw ci yéen ak Madiambal ah voilà damay ñëw ci majambal ak copain major Kandji bëgg a fasal nit dañuy gis nit defuñu dara ñu bañ ko te xamuñu sax lu tax ñu bañ ko mais yéen laissez la chance à Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko lan la lan

Euh, gars yi may leen ma une minute baal leen ma dama am ku ma allo waaw ça va bindal ma ko ok waaw xaaral ma yeggali lii booy ba booy bi lañ ma doon jox information léegi mooy booy bu la tax boobu nekk fële ci Italie di wax eh, Allemagne di wax ay waxi dof eh, vingt cinq million lañ ko jox pour muy génn di saaga Sonko ak muy saaga dëkk bi yëpp eh, ku génn rek mu saaga la ku génn rek mu wax la yu ñaaw voilà léegi may leen ma maa ngi ñëwaat tuuti rek ma yeggali ko dégg nga may leen voilà may leen ma dégg nga may leen ma tuuti rek dafa am information bu may bind rek voilà léegi pare na léegi boo leen xoolee suñu sœur boobu di ngeen gis ne dafa mer carrément boo leen xoolee suñu sœur bii di wax dama leen ko bëgg a indil rek

Sénégalais ñu bon mën a sosal nit dañuy gis nit defuñu dara ñu bañ ko te xamuñu sax tax ñu bañ ko mais yéen laissez la chance à Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko lan la lan la lan lii ngeen def nii moo tax ñu bëri laa la wax dañuy juddu Sénégal du ñu bëgg euh, euh, euh, yaru Sénégal wala màggee dañuy préférer daw am expérience ñu ñëw ci dëkk Europe yii di fi jëriñ parce que yii moo tax ala kolon day jóg ñun ñoo ko sacrifié keneen ak keneen ñi fi dee ñëpp laa la fi am tur Mamadou Dia Elisa ok sénégalais ñoo leen sacrifié Ismaïla Thiam parce ñuy wàccel nit boole ñu ak moom pour mu defal ñu révolution wala mu changel ñu doxal ñu suñu akkaat suñu yelef ñu toog di ko seetaan wala ñu toog di ko sosal di ko duulal ci loo xam ne ne xamaluñ ko dara Adji Sarr réveillé benn jour Adji Sarr ku ñu violé na leen waxante dëgg ku ñu violé dina mel ni Adji Sarr maison de luxe Adji Sarr la ñu mujjee violé na leen dëgg combien de filles on on les a violées au Sénégal est-ce que dañoo am eh, état bi eh, Adji Sarr nekk maanaam di dans ci appartement de luxe di takk cheveux ba ci xottu taat yéen Adji Sarr yéen war yéen waroon waru warul sax nooyi ci dëkk bi 14 morts sont décédés sur ce dossier là léegi on parle de capitaine Touré capitaine Touré kon dafa jaay dafa jaay liggéeyam parce que dafa gëm Ousmane Sonko wala dafa bëgg Ousmane Sonko capitaine Touré ñëpp defal ko témoignage a yàgg na dans la gendarmerie di def liggéeyam enquête bu enquête de bu nek capitaine Touré mëne Moi, ko. moo daaneel am benn benn benn benn erreur. comme par hasard. comme par hasard. Daniel capitaine Touré mënul résoudre. mais mais vous êtes des tarés. <clears throat> mais yeewu leen. on vous vend de la poudre d'or pendant que ça l'Afrique le monde il évolue le monde il évolue gis nga révolution du Ousmane Sonko moo koy def du Elisa moo koy def du Balake moo koy def la révolution ça peut pas faire être par 10 personnes c'est toute la population Mali bañu ñu bëggee révolutionnaire jub dañoo ak imam imam bi accompagner leen Mali bi yëpp jug jàmmaarloo taxaw tey ji ala Mali ala Mali si vous vous rappelez pas de l'histoire du Mali je vous la raconte Mali il a jamais cru euh, Mali il a jamais été stable Mali ba mu doonee Mali ñun ñëpp ñu jàng l'histoire de la du Mali Mali guerre la mës xam Mali guerre la mës a xam alamu tey Mali Mali moo ci moo mu ngi dund dund bu sen Mali génne na fi base militaire français yi Malee ngi ci jàmmam Malee ngi moom a ressource am nànk-nànk alamu tey est-ce que ñun euh, euh, dee ñu am sax laa la wax ci révolution euh, bu ñuy mëne nii Mali si révolution wam bi est-ce que ko non non non on ne meurt qu'une seule fois man Elisa man ma ngi fii nii xam nga lan moo ma tax ma def sama life man du forcer kenn ne ko je suis personne pour dire à qui que ce soit genn len len la mën a wax moy quand on fait ce combat là on le fait pas pour le jëm Ousmane Sonko li ñu nekk di dund ni c'est de l'injustice et tous les jours Macky Sall nous Nous, Nous, population sénégalaise nous nous, nangu di nous, nous, nous nous nous nous nous Nous boom parce que nous nous Nous Nous stop nous mais nous nous nous, nous nous nous Nous nous Nous Nous mais comment Nous gagné on va pas le gagner. voilà nous, dama bëgg ngeen comprendre cette dame elle a mis une tenue militaire par symbole dafa sol tenue militaire par symbole euh bo li limu def dafa am luko metti am luko metti xalé euh, on a kidnappé son avenir xam nga il faut vous avenir aux jeunesse sénégalaises sénégalaise parce que Macky Sall il est à la retraite boo leen xoolee âge il est à na mais il bëgg kidnapper li nga xam ne moom Sénégal bi jeunesse bi kidnapper son futur parce que kidnapper futur nit wala euh, bloquer futur mooy nit am vision ci dara xam fi mu jëm xam fi mu war a jaar waaye yoon bi mu war a jaar yëpp ñu gàllankoor ko make sure ne que mënu faa jaar loolu moo ñu dal ak Macky donc boo leen gisee tey xëtër yi ak xol yi jóg ak lu tax ngeen gis ñu taxaw ci kanamu Macky Sall di ko baare yoon bi di xeex ak moom parce que Macky Sall il est très puissant bu ma leen nee puissant Euh, Macky Sall dafa jënd genn wàllu média sénégale xam ngeen tey est-ce que xam ngeen lu ëpp ci média Sénégal buy génnee xibaar tey dañ koy fay à l'avance maanaam euh, bari na ci journaliste sénégalais yi nag ñoo xam ne tey ñu bari pour ñu génnee xibaar dañ leen di wax jox exactement li ñu war a wax ak niñ ko war a waxee ñu ne ñaata loolu mooy émission sur commande comme ni Seneweb di def Seneweb loolu lay def leeral lëndëmal tamit noonu la ñuy def maanaam dangay ngay jël li nga bëgg nga indi nga ne leen lii laa bëgg nga waxal ma tey walla yow doo ma invité waaw looy looy ci voilà ñu ne la waaw d'accord léegi nga invité leen ñu ne la lii laa bëgg nga laaj ma ak lii ak lii ak lii da ngay gis journaliste bu invité nit sax ne ko ba yow wax ma ci sa waaji mu wax ko waaw waaw yow defal ma ci ci ci waa ji waaw ma mel ni DJ xam nga DJ bu nekk di jouer musique ngay dem ne ko tegal ma morso bi journaliste Sénégal noonu la ñu mel léegi ñoom ñoo gën a yomb sax caga parce que dañu bari ci dëkk bi te njëg sa ça dépend bu dee ñu jigéen ñi da ngay gis ñu mag yow ba rafet teg seen rouge à lèvres maanaam pour attirer attention maanaam dressé wu comme caga ñu ñëw toog nekk ci ci télé bi bu ñu ñëwee toog ne nii de pompé ween nag ba mu yéeg allo <laughs> waaw taal taal nag nga toog def nii légui buñu togué way yow eh, yow waxati ba sax nga ne Sonko du def waaw nga yow xalé bi yoy lañuy def ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle manam nga dem jàngi dara ba paré yalla may la xam-xam bi nga def lu lu safano ak lolu lolu la journaliste sénégalais yi def li tax ma indi lolu nak moy dama bëgg ñëw ci pap Ngagne pap Ngagne mu TFM mi invité dem démb jabal Diagne pap Ngagne c'était un bon journaliste dama xamul euh, waxal dara xam nga vraiment mi ngi mi ngi mom bu il vit bien il est il a bien beaucoup d'argent et je sais donc xam naa ne koy yëngal-yëngal ndax dafa jaay totalement parce que yenn say mu def touti balance yenn say mu invité nit a touti ci yoon manam demul ba jeex manam bu doon prostituée tay da ngay prostituée bu am la manam day sëy di njaalo xam nga njaalo wuté na ak ka nga xamné mom xam nga pam ngañ bobu mo gëna grave nit ñi loolu lañu comprendre quoi njaaroo moy ngaralé bobu mo gëna grave sax nafiq 100% parce que au moins ka amul jëkkeur muy cagatu koku mi ngi njaaloo rek mi ngi mi ngi moy yalla mi ngi moy yalla mais wuté na ak nga xamné dafa am jëkkeur ba paré di cagatu donc paam ngañ loolu lay def day wax ak fi parti bi mu gëmloo leen nekk moom nit ku jub la nit kuy teg yoon la après mu dem indi parti bale mu ñu yàq la lu mel ni xame parce que Pape Ngagne moom moo leen gën a tey ne ka mu invité noonu ma Madiambal Diagne li mu doon wax ci télé bi yëpp day dóor Pape ngañ moo leen gën a xam loolu parce que Pape ngañ il n'est pas né hier et il connaît beaucoup du Sénégal moom moo la gën a xam ne Ousmane Sonko dawul ndax Ousmane Sonko fajar bu ne ñooñu koy garde ñu nekk ci buntu kër gi dañ koy gis fajar bu ne démb sénégalais yi la woon boppam mu taal live mais Ousmane Sonko ba barki démboo njaay bi ngeen koy laaj nee nañu leen mi ngi këram te kaldu la añee wax nañ leen loolu ma Madiambal Diagne gëmloo ñu ne que Ousmane Sonko nekk na benn super héros boo xam ne day daw day naaw dem ci forêt ba dem gisi euh, la nga xam ne moom mooy la la nu leen tuddee je ne sais pas bois sacré wala yenn say mu euh, force euh, xawma lan manam tout bu ne djel nako tek ko ci bop Ousmane Sonko mais dina leen wax en réalité li problème jambal djagn ma jambal djagn gelam Victorine ndey la tuddu Victorine ndey ministre la jambal djagn xaritou Macky Sall ben bakkan Victorine ndey li tax ñu fal ko tay ministre ci jambal djagn la jax te xam nga Sénégal nii lay doxee il faut sénégalais yu bari xam na muy doxe yow tey boo amee capacité jege président nga nekk dunguróom nekk suqam di ko defal salbuloom nga nekk xaritam man na laa falal say xarit ci place yi nga bëgg mu fal leen donc Madiambal Diagne Victorine Ndeye muy meeru ñaagis en même temps meeru ñaagis léegi yéen waa ñaa gis laaj leen seen maire ñaata hectare suuf la jox ma Madiambal Diagne laaj leen ko ne leen ko ñaata hectare la jox Madiambal Diagne Madiambal Diagne il a beaucoup de terre en Casamance meeru gis boobu di gelam Victorine Ndeye laaj leen ko ñaata suuf la jox Madiambal Diagne moo tax ngeen gis ñoom ñu déguisé wu noonu ñoom waa Casamance benn côté bi quelques-uns mooy euh, sama mbokku mankaañ yi quelques-uns bariwuñu de ah euh, Victorine Ndeye Jérôme Bandiaki dinaa leen wax tamit Jérôme Bandiaky ak euh, Madiambal Diagne parce que xool leen Mankaña Jérôme Bandiaky il est de Niaguis ok déglu leen ma Jérôme Bandiaky Niaguis la dëkk Victorine Ndeye Niaguis la dëkk gelu euh, Madiambal Diagne la Jérôme Bandiaky moo rey Fulbert Sambou ak Didier Badji fan la leen reyee kër Madiambal Diagne tubaab jalaaw kër Madiambal Diagne foofu la ñu faatee Didier Badji ak Fulbert Kër Madiambal Diagne tubaab jalaaw kan moo leen faat Jérôme Bandiaki ak groupe ñoom ñoo rey ñaari nit ñooñu toujours le même Madiambal Diagne Madiambal Diagne xam ngeen lan moo tax mu bëgg a jàmm mu am Casamance ku mel ni Ousmane Sonko bu mu mas a falu ci bopp Sénégal parce que Ousmane Sonko bu falo ci bop Sénégal xam ngeen Madiambal Diagne ñaata patrimoine la am xam ngeen Madiambal Diagne ñaata souf la am ci Sénégal xam ngeen Madiambal Diagne tay bo konté won ci suufu Sénégal souf souf rek dafa melni waji waa ji day lekk suuf Madiambal Diagne boo ci suufu Sénégal bi si il n'est pas encore une fois damay wax de Ahmed Khalifa Niass mo ëpp souf ci Sénégal Ahmed Khalifa Niass waxuma Sidi Lamine Niass Ahmed Khalifa Niass bép sénégalais bu am souf ci Dakar Ahmed Khalifa Niass mo la ëpp souf légui lan ngeen gis ci mom tamit do leen ko gis ci télé yi mu yor làmmiñam bi di dal ci kaw Sonko Sonko yu metti Ahmed Khalifa Niass il a plus de terre que tous les sénégalais bo leen dajale won mo ëpp souf ci Dakar Ahmed Khalifa Niass bi ngeen di gis ce vieux connard là boo jëloon Madiambal Diagne dans les cinq premiers du Sénégal il fait partie ci souf amna souf suuf ci Sénégal partout dans le Sénégal Madiambal Diagne amna souf donc Victorine Ndeye la ministre de la ministre est maire de Niagis et habitant de Niaguis moy gelam loolu mo waral ñu indi frère Victorine Ndeye hypothique, Ndeye pour mu juger juge le cas Ousmane Sonko

man woo nañ ma man bugguma vraiment démb wax naa ak kenn ci famille Mankagne bi mu woo ma euh, ñu nuyoo et mu Hippolyte Hippolyte la Hippolyte voilà Hippolyte Ndeye pas hypothèque Hippolyte Ndeye ñu naan ko Hippo Hippo lañ koy woowee dañu dagg tur wax naa démb ak kenn ndeysaan mu euh, am lu ma expliqué euh, mu am lool lu ko naqari aussi ci cas bi mais on m'a fait savoir que Paul, le frère de Hippo, a appelé Hippo pour lui dire que Hippo le cas là les secrets sont divulgués et quand tu continues avec ça on risque fort il faut arrêter parce que fii lu fi xew patriotes réagir donc arrête donc Hippo est en train de se retirer en ce moment là où je vous parle ba nous ñu ngi sax de euh, juge Boubès. Bon, je vais vous donner le nom juge Bobou. Euh, mi ngi Mustapha Mustafa Fall Mustafa Fall le ñu bëgg mu remplacer Hippolyte Ndeye parce que Hippolyte Ndeye bi ñu génnee turam yuuxu ko ci réseaux sociaux yi ne sœur Victorine Ndeye la ñom ñu ngi bëgg déllu ginnaw ci Hippolyte Ndeye lool yëpp lan moko waral c'est parce que benn gangs benn groupe gangster moto toog mu ne fay accaparer Sénégal jël suufu Sénégal bi yëpp di xeex ak ñun corps et âme il faut ngeen xam né ñi ñuy amuñu choix ils n'ont pas de choix le seul choix qu'ils ont moy ñu ñew ñu né ah man de 100 milliards la am ci banque bi xaalis bi yépp mi ngi ni ñu vivre comme un sénégalais ordinaire lolu gëm yalla rek moko man parce que li ñuy xalaat moy ah waa Sonko bis bu ñëwé terrain yi ma am ni yépp dina ko nangu xaalis bi ma sat yépp dina ko nangu té dina ko delloo population sénégalaise donc il faut que je me bats pour mon existence donc lolu mo waral génnu ma Diagne yi ngeen di gis jambal Diagne n'est pas sorti pour informer les sénégalais ndax waxul information ma jambal na Ousmane Sonko mo ne juge len ma bo len ma woy yàkkamti procès Ousmane Sonko bim len dina di na procès booba yen defagu instruction mais Ousmane Sonko bi ngeen defé instruction ba jël sen juge Maham Diallo jëlé ko encore Casamance te jambal Diagne sa loxo ngi ci yak Macky ngeen ki nga xamné mom moy Maham Diallo Casamance loxo Farba Ngom ne ci parce que yow ak Farbangom, ak Macky Sall vous vous travaillez main à main corps à corps parce que vous fatane ne courtier de terre la won te yow terre rek nga bëgg manam souf donc yak farbangom yag yàgg ngeen ay xarit ngeen. te wuñu né tu es quelqu'un qui a été condamné par la justice sénégalaise yow mi di wax pour ñu respecter justice yow condamné nañ la te yaa ngi ci tali bi di dox di def lu la neex justice sénégalaise condamné ci kasso nga waroon nekk heure bi di servir un an de prison waaye yaangi ci mbedd mi tambaamalu kenn du la jàpp ndax da nga and ak waa yow justice bobu nga ne ñun ñu wolu justice bi def injustice ci kaw sénégalais parce que yow ci kasso bi nga waroon nekk tey justice bobu bàyyi la nga dox nga bëgg justice bobu ñun ñu wolu ko mu attel ñu ki ñu bëgg te yeen bëggulen atté Ousmane Sonko voici le secret que je vais donner aux Sénégalais aujourd'hui Nyom bëgguñu atté Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko résultat atté ñom bind nañ ko ba pare bu len faté né Ousmane Sonko mo taxone ñom ñu créer loi bi nga xamné mom mo criminaliser viol Ousmane Sonko mo tax ñu créer loi bo donc ñom résultat bi ñu bëgg japp Ousmane Sonko bi ñu bëgg duggal ci bop sénégalais tégal tegal nañ ko Ousmane Sonko ba paré mi ngi koy xaar pare nañu à tout prix pour jël Ousmane Sonko bobu tej ko ci bir kasso ils sont prêts il faut ngeen le il faut ngeen xam le sénégalais yi waxal nous ñun là. pour protéger dama vais di jox un exemple est-ce que gis ngeen oto Macky bi gis voiture blindée bi voiture blindée bi ci kaw gis ko tracteur tracteur voiture blindée bi mën na jënd cinquante tracteur ci tracteur yi gën a mag ci àdduna bi laa la wax tracteur bi gën a mag bi gën a xam nga mën na dundal ñaata nit boo ko liggéeyalee normalement mën na dundal un million de personnes maanaam mën na béyal un million de personnes seen ay tool un million déglu li ma la wax de un million de personnes tracteur bi mën na leen béyal seen ay tool donc boo jëndee cinquante tracteurs yu mel nii tey nga yóbbu ko ci biir Sénégal rassure-toi que presque genn walu Sénégal bi yëpp sen problème dina jeex tracteur yu mag yu melni waxuma tracteur yu ndaw yi de tracteur bi di mamu tracteur yoy la américain yi moom la yor ci tool yi fi da ngay gis muy yendu ci tool yi di fanaan ci tool yi mën na liggéey tracteur bi 24 heures sur 24 quatre di mamu moteur la am jandia ya. auto bi Macky Sall jënd ni voiture blender bi mën na jënd 50 tracteurs yu melni mi ngi ni voici ce véhicule blindé coûte 455 millions Les gars, voiture blindée bien. rek C'est une voiture militaire c'est pour répression madame. pour population bu la répression nga dal seen kaw utiliser avant on ko daan utiliser bu yàgg manam auto yi bokoy utiliser déjà mënul manoeuvrer ci diggante nit ñi parce que xéer yi la doon bañ xam nga xéer day toj vers auto ñom tubaab yi dañ ko doon def pour moytu xéer yi ba paré di tour nit ñi ndox mu tang touti pour dalal leen mais tubaab du tirer balle réel ci kaw ay manifestants duñu sax yobbu balle réel c'est interdit <laughs> c'est interdit sax ñu yobbu balle réel ci ay manifeste démb maa ngi dégg benn way bu génn dama bëgg ngeen ñu si li mu wax ñun ñëpp ñu li nga la parce que moi quand je l'ai écouté j'étais choqué que lâcheté Madame coxorte bu mel noonu existe Sénégal ba léegi waa bi ko dama choqué damay xool ndax vidéo bi hmm. ah, je suis pour que bu ñuy une intervention qu'on leur donne des balles réelles. parce que am na fenn fu de yenn yi armée la tenue militaire pour moi, elle est sacrée l'uniforme dafa sacré tenue de police tenue de gendarmerie tenue d'armée, armée douane etc. pour moi c'est sacré ceux qui ont fait les 3-4 mois foofu bango double foss au Lyon, ils nañu la mais tu peux pas ces gens là ñuy dem nga dans la nature ils ne leen souvent ils ne ful pas Ils dara du dañu dem seet seen famille am lu ñu leen jox ndàmpaay et la vie continue mais ñoom bu ñu tiré sur la foule on dit que ni ñoom lu ñu def c'est pas normal. foule bi comme li nga wax ne ñoom jumtukaay yi ñu am seen oto blindé yi ñu am foule bi amu ko nag grand yow tam nag. bu fekkoon ñoom ci manifestation yi di ci image yi moo di ay xale dañuy taw euh, ay xeer. bu fekkoon ñoom équipement yi ñu am dañ koy utiliser correctement seetu ñu si ay droit de l'homme ak yooyu li ñu leen toroxal kenn leen ko toroxal mënoo amee blindé nit ame loxo neen ba pare bëgg mais il faut déclencher bu la foule bi songee nga dóor lu mu dee dee fay daaneel quatre cinq nga daaneel parce que nous avons la force publique nous avons di état nous avons di protéger après mais on ne peut pas tous les jours d'accord, gendarme ñu daw baisser fi seen ce qui s'est passé à Saint-Louis il y a trois jours nous taal auto police mais au nom de quoi parce que simplement on est en politique Moi, je ne suis pas du tout d'accord j'aurais été chef d'état-major j'aurais été patron de la gendarmerie j'aurais été euh, le directeur de la police bu gars dem je leur donne toutes les armes qu'il faut parce que itam. Euh, à chaque fois manifestation manifestation su amee ni force de défense yi di tirer ci feu bi dañ ci am. <coughs> xam nga force de défense duñ ñëw retirer. on a des hommes. Salam alaikou Boki di jéggal bu baax ci li ma sol doo ko sport mais la am ben, émission voilà gars Lila deg ci suñu waa mu wax ko voilà lila wax lila genné comme cadeau wax ko aduna bi yeb di deg li moy nguru parce que dans un pays sérieux des personnes comme ça ne doivent pas parler voyez euh, malheureusement pour nous on a des personnes comme ça au Sénégal et ils peuvent toujours parler. Euh, Motach, tax Inch'Allah rabbi Nous continuer rek euh, ñu ne euh, jox nañ Ben Mahtar... le tudd j'ai ici euh, des informations comme quoi qu'il était le directeur de l'information à 2 TV et on l'a viré parce que la escroquerie et cette escroquerie Ben Mahtar il y a une semaine Ben Mahtar a demandé à, et obtenu de la 2S un prêt de 1 million 500 000 francs CFA en vue de régler quelques problèmes avait-il mentionné dans sa lettre en date de 26 mars 2020. Voilà, qui euh, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les médias xam ils savent que avec le président Macky Sall koy waxal li bëgg waxal ko jëm ko population bi mu jox la li nga bëgg voilà donc euh, ma encore ben yon ci toujours sur Madjambal Diagne il faut savoir encore une fois que madame Diagne a la main dans le cas dans le dossier Adissar Ousmane Sonko bi mu ko bi ñu bi gars yi tegee di ba pare moom bokk na ci moom bokk na ci accaparé parce que mon moo leen di doxal côté Casamance à travers Victorine Ndeye comme bu jaaree ci Victorine Ndeye muy seq ak moom ñaawteefam moom it Victorine Ndeye tamit di ko dimbali di ko defal li nga mon ne mom it la bëgg Donc on est dans un état de mafia dirigé par des délinquants. Donc Madame Diagne n'est pas un exemple. amul information bu mu indil sénégalais damay ñëwaat rek encore ci li nga xamné wax ko néna le président Ousmane Sonko. a dégg toujours ñu humiliation dañ koy wax pour patriotisme ils veulent humilier le président Ousmane Sonko humilier mooy lan mooy nga djel nit xam nga tay man man nañ ma baña atté ma taxaw ni rek ben nit nekk fële di ma saga ndey sa yaay li la sa yaay diw def nako ni sa baye diw def nako sa dom diw def nako ya def nañ la sa jabar def nañ ko xam nga nit man na wax loolu yëpp fekk muy sos mais tout simplement dañ koy def pour ternir sa image pour gàcce loola quoi pour ruus loola manam c'est machiavélique dañuy def lolu tout simplement rek pour vraiment di la wax lu ñaaw wala di la ki lu ñaaw di la traiter lu ñaaw pour lan pour tout simplement rek ruus lola gatcha lola lu mel nonu lañu bëgg a def Ousmane Sonko mais à une échelle exceptionnelle am ko ko teunk ndax ñun du euh, duñu def li tuddu plagiarisme plagiarisme ci amerique moy nga jël waxu jàmbur nga def ko sa dama bëgg indil audio vidéo wu Bousso oh j'ai été contente quand je l'ai écouté ma ça m'a fait du bien et j'ai compris encore mieux que euh, les ma comprendre je viens de comprendre li nga xamné comprendre nañu Je nga mois. du début à la fin. ok dama ko bëgg a indi. ñu déglu. en fait la nangu di ci ci ci tribunal xale boo xamante dama xam dama bëgg dama bëgg kii indi bi au début. en fait lan nga ko lan la nangu. waaw may mën ci ci ci tribunal xale boo xamante ne ñaaw na làmmiñ ñeme na sañ na am na fit ndax dañ ko fital taxaw ak ñoo xam ne ñaaw nañu làmmiñ bon nañu soxor nañu yéene nañ ko dee yéene nañ ko doon ay jabaram yéene nañ ko rey ay njabootam lu bon lu ne yéene nañ ko ko kan mooy nangu toog ci procès bu mel noonu ñu di la àtte pour di la daan teg ci kan ci procès boo xamante ne ñépp xam nañu ni machination la nga toog ñu lay sosal nga teg ñu lay tuumaal say doom di dégg say jabar di dégg say mbokk di dégg Sénégal dañu xool lan la ñuy demandé à Ousmane Sonko. Mm. parce que Pape Alé dañu waxante dëgg. lii musu fi am. musu fi am. acte nañu nit ne la da ngaa sàcc. Mm-hmm. acte nañu nit ne la da ngaa luubal. da ngaa toog ci procès. d'accord expliqué justificatif ay papier. fii la xaalis bi jaar pour si Karim Wade pendant cinq mois. Mm-hmm. ay témoins ñëw. ñii ne xaalis bi demee ñu ne kii yaa moom lii moom ne ko teg say preuve leneen ak leneen di c'est c'est benn bi bu intime loo xam ne ñaari nit ñoo ko sëkk kenn ki fen kenn ki wax dëgg kii ne man defuma kii ne yaa def justice su fekkoonte ne li mu wax dëgg la bi ñu ko indi ci preuve war ko mu jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi ne ko yaa def ak lu ci mënti am ñu ne ko yaa mu jëf mais justice ba mu gis nga may mën a bësoo. li mu wax dafa tënk lépp. Adji dafa tuumaal doomu gor bu tudd Ousmane Sonko te Adji Sarr bi mu tuumaalee doomu gor boobu bu indil nañ leen ay firnde yoo xam ne Adji Sarr moo ko wax lii ay waxu Adji la yu génn ci làmmiñu Adji Sarr dugg ci nopp ser kullu yooyu laa leen bëgg indil parce que ñun bëggatuñu waxantu dama leen bëgg indil ay waxu Adji Sarr ci boppam ndax Adji Sarr ba mu waxee sénégalais yépp ko dégg déggaat boog dégg déggaat ñun ñëpp dégg nañu li Adji Sarr wax ñëpp dégg nañu ko quand elle a parlé elle a elle a wax na lépp. dama leen ko bëgg indil jéggal leen ma vidéo yi day bari nag yéeg ba ci kaw voilà dama leen bëgg indil li aji saar wax parce que wax na moom wax na li mu wax mi ngi ci ay audio mi ngi ci ay video am nañ lépp on a tout donc du loo xam ne dañ ko koy waxal bugguñu wax wax ay waxu Adji Sarr voilà dañu bëgg indil leen a nga xam ne moom la Adji Sarr wax baal leen ma de gars vidéo yi day yéeg ba ci kaw a kaw a kaw parce que dafa bari dafa yéeg ah. parfois dañuy déglu vidéo yi mu yéeg lool ah. sama gaay yi dañuy déglu vidéo yi rek baal leen ma dafay bari dafay bari ba yéeg ba ci kaw. waaw bii ban jour voilà mi ngi nii dinañ dem. Mamour Diallo rek lim la a jox ci ay millions kenn mënul ko wax. te xoolal le mec le mec il m'a forcé ma am benn conversation comme si moom may jàppale rek nee na comme si daf may jàppale est-ce que xam nga loolu. moom moom ci boppam. moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo war a si ba gis ma man xaw ma woon dara mais dafa tiit moo ko waxoon ne am naa benn si boo xamante ne loo gars yi dafay dem di koy seetal moom rek Mamour Diallo ma koy seeni lu def maître Sow yor naa benn lii nii li nga xamante ne maître Sow moo ko bind sa loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow yaa maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu

c'est c'est important pour doomu sénégalais yi di ko dégg xam ngeen may mën a bu sa wax na leen nee na leen ñii dañoo accuser nit ki bu ñu amoon ay preuve billahi ñii bu ñu amoon benn preuve contre Ousmane Sonko ne moo def ma ñàkk sama ndey duñ ko bàyyi mu génn ci kaso bi bu sénégalais yi réewoon cinq mille sénégalais ci mbedd mi it du ñu leen bàyyi ñu bàyyi Ousmane Sonko mu bi dañ koy bàyyi ci biir kaso bi mais problème bi ñu li ñu ragal dafa am loo xam ne da ngeen koy bàyyi xel sénégalais yi laay waxal li ñu ragal bu ñu tëjee Ousmane Sonko par force ci ay fen quatorze sénégalais dee nañu mën nañu topp Macky Sall déjà cour pénal parce que ci ay fen la bu nekkee ci dëgg amul problème bu nekkoon tey Ousmane Sonko dafa rey dafa dafa dafa def crime boo xam ne am nañu preuve ne Ousmane Sonko moo def ñaawteef bii dañ koy tëj ci biir kaso bi ci biir kaso bi nag buñ ko tëjee parce que il faut ngeen xam ñaari nit dafa am loo xam ne c'est un crime contre l'humanité loolu naka la mën a nekkee damay damay indi ñaari firnde yi ngeen bay ci xel voilà un crime contre l'humanité mooy ay nit yu deful dara yoo xam ne dañuy xeex seen ak ak seen yelleef nga tiire seen kaw loolu c'est un crime contre l'humanité léegi nak bu fekkee Ousmane Sonko dafa def mu ray nit wala mu def ben crime bu fort ñu tëj ko ci bir kasso bi ben gang ñew di ba ko bëgg génné fofu par rapport boo tiiree kaw lool du trip lool du crime contre l'humanité il faut nga xam lool parce que Ousmane Sonko est un criminel té prouvé nañ ne que criminel la ñu japp ko tëj ko mais comme ñom amuñu ben preuve ci mom té xam nañu né deful crime képp ku ñu gañ ci diggante boobu c'est crime contre l'humanité donc ñaari affaire yoy il faut nga mën ko différencier donc Macky Sall bu forcé won tej Ousmane Sonko bakkan bu ci rot il est responsable parce que fenn la parce que li tax muy fenn bu ñu demee cour pénal dañuy laaj preuve yi nga xamné mom lañu jappé Ousmane Sonko pour mëna atté atte Macky Sall te bu ñu indee preuve yoyu day wane nek en fait complot la parce que li fuñ ko yobbu ci benen réew bu dul Sénégal dañuy xamné complot la comme Ousmane Sonko tay fuñ ko mënon yobbu atté ko Ousmane Sonko buñ ko yobbu won benen réew bu dul Sénégal atté ko rek dañ koy acquitter mu génn

président Libéria c'est ce qu'il a fait il a tué des gens Charles Taylor mais il est en prison Il lay a cour pénale dañ président Kosovo Solovan Molasevic. Solovan Molasevic, Dena, non voilà a été après en prison je ne sais pas mais on l'a mis en prison donc chef d'état il est en prison Si defee yenn fait un ñu ñu porter la plainte au cours pénal comme Dadis defe naa moom it ñu koy jugé xawma fi jugement bi tollu won mais xamoon na ne ñu koy jugé donc Macky Sall il sait que amna crime yo xam bu ko defee il va aller en prison lui et sa famille xam na ko donc motax tax ñuy waxaat sénégalais yi rek né il faut ngeen xamné mom xamna il sait mom xamna mom xamna dé mom xamna né lépp lu mu def ci Sénégal ñaawteef yi muy def di ko ànd ak xaritam nii di ko def il sera jugé léegi na gars bu ma fàttee euh, major Kandji gis ngeen ma bind ko noonu ci titre bi major Kandji major Kandji xam ngeen kuy major Kandji voilà dama leen bëgg indil major Kandji major Kandji dafa am contrat lépp luy contrat Senelec déglu leen ma le luy sécurité Senelec ci Sénégal major kandi moko yor ci loxom motax ngeen gis mu takk fitam ni di dem ci télé yi di narale rek di yaatal di ubbi di wax lu ñaaw lepp lu mu mën euh, accélérer ci kaw Sonko daf koy def parce que ces gens-là c'est des corrompus et c'est des personnes qui ont été épinglées sur des crimes ay nit lañu yo xamné dañ leen épinglé ci ay crimes major kandi nit la koo xam ne dafa am contrat ak état bi contrat boo xam ne fépp fuy Senelec ci biir Sénégal moom moo yor seen sécurité démb rek maa ngi koy waxtaan ci sama wetu benn xarit biñ may jox information yi ñu ne ma ah major Kandji rek mu ree mu ne ma mais àdduna moo gudd tàng ba ko lu xew mu ne est-ce que xam nga ne li ngay wax nii keroog bi muy xew maa nga fa fekke naa lépp gis naa lépp ma ne ko lay wax nii mu ne ma wii mu ne ma c'est une vérité Major Kandji dañ ko jox contrat wu Sénélec Sénégal yëpp Macky Sall noonu lay def ak yow daf lay jox lu rëy pour léegi ngay génn di ko défendre loolu lay wax euh, partisan mi toujours moo tax ñuy sàcc toujours kenn du leen teg mais pour wax leen rek nekk en gros somodo ñoom ñu ngi ci yoon fan yëpp ñun ñëpp ñu ngi koy déggandoo ñu ngi ci yoon

est xam ngeen lu tax Macky Sall xaw a génnee ba gëj a génnee réel parce que Wan Branco commencé naa dajale bal yi balu fetal yi Macky Sall di génne Juan Branco commencé na koo dajale léegi xale yi dañoo xarañ Macky Sall bu ay bal réel dañuy fol bari ci tàng-tàng bi photographier bal yi yónnee ko Juan Branco mu dugal ko ci dossier Macky Sall ak Moussa Fall ak ñoñoom CPI jox ko procureur bi ñooñu tamit investiguer cour pénal li tax ñu créé ko mooy lii de samba booy yi njiitu réew yi nga xam ne ñoom defe nañu ne il son hors la loi da ngay nekk ci booru ci biir réew def crime bu la neex boo paree nga wàcc nga dem tëddi sa kër nelaw te dara du la topp déedéet déedéet loolu xewatul ci àdduna bi àdduna bi tey ak koo mën a doon ak sa maqaama nu mu mën a toll boo defee jee dañ lay jël yóbbu la yi atte la buñ la waree teg daan ñu teg la daan loolu moo xew te ça consiste defe naa cent cinquante et quelques pays ñoo booloo pour créer lool donc loolu képp kuñ ci war a atte da ngay am mandat d'arrêt international bu dee président Afrique yi moom day gaaw bu dee ay genre Poutine nag ñu yor bombe atomique ak ñooñu Poutine xam nga kenn du ko mën a jëli ndax bombe atomique yi mais bis bu wàccoon bu génné territoire Russie bobu fu mu mëna dem ci aduna bi dañ koy képp duggal ko yobbu ko CP mais fi mu ne nii mënuñu ko parce que doole bi dafa bari mais Macky Sall mom xam nga né amul amul doole Macky Sall fi mu ne yo CP yi buñ ko bëggé jëli mom Guinée Bissau la ñuy yónni rek ak eh, Gambie ñu né leen dem leen japp Macky Sall ñu dem japp ko indi ko ndax amul doole donc ils sont ils ont peur donc en ce moment bo leen xolé dinañu bayyi xel ci mbirum bal bal réel parce que fi mu ne ni ñu nit wut nañu avocat international Juan Branco dina leen wax dara c'est un avocat qui a un doctorat avocat master rek la soxla master degree mais Juan Branco dafa am doctorat ba paré dem soutenir doctorat thèse CPI donc c'est pas quelqu'un qui est curieux de la CPI xamna CPI ni muy doxé xamna na fofu donc moo tax mu ne leen yónnee leen ko ay information tey boo doon wut nit CPI Juan Branco ngay wut maanaam moom mooy the best of the best maanaam tey boo doon wut avocat pour yóbbu CPI Juan Branco sera à donc patriotes yi yàlla àndaat na ak ñun amaat nañu ndam parce que fi mu ne Macky Sall man maa leen garantiral lii maa ngi koy wax de te manifestation xam nga gul mais man Ousmane Tounkara maa leen ne Maki. Maki. waaw waaw mais on connaît on connaît les vidéos on connaît ces vidéos et ces audios montel nañ ma benn dina leen les ben léegi vous. xam ne ñoom waa APR ñoom ñu ngi ci montage bi écoutez ça bi vous voyez ma figure gis nga sama kanam ah déglu leen dama leen di tegal. kon deux mille vingt et un bokkoon nga ñu doon ne lii man la. déglu mhm. ak information yi ma am te jamono bi ma te la gënoon xeexal te ko tey jamono bii la gën a yomb a xeexal mais ma taxaw tey contre ko. kii la ñu a bàyyi la. ah lan moo la poussé. dégg dégg ngeen lii dem ba bi gàntu la xeexal. dégg man du ma waxee noonu sax. amul li ñuy gis ngeen montage bi. leadership. déglul. maanaam. amul li ñuy wax ne mooy leadership déglul leadership. boss I speak English very well I'm very well spoken. I have been in this country for 33 years. I can I can almost speak English backward. mu ne amul li tuddul leadership leader leadership. kenn du ne leadership leadership leadership dégg loolu boo xam ne ba de Ousmane Sonko man la waaye tey li ñu gis mooy Ousmane Sonko moo paniqué te yeggaguñu ci procès nga may ma foofu une parenthèse kon deux mille vingt et un bokkoon nga ci ñu doon soutenir Ousmane Sonko ci innocence am. bu leer naññ. te regretté wu ma ko. Mhm. li tax regretté wu ma ko dama ko doon de bonne foi. Mhm. mais bonne foi bi taxoon ma ko doon def. ak ya ma amoon ci jamono boobu ak information yi ma am sa jamono bi est-ce que est-ce que xam ngeen ne affaire bi man dafa def ay ree parce que bëgguma tudd tour nak parce que bëgguma may gars yi bës mais presque xamna sax touru kan la xamna sax ki wax ki voix bi xamé naa ko <laughs> voix bi sax man xamé naa ko <laughs> ñu ñooy ay délinquants non c'est des vauriens quoi c'est ces petits vauriens de Macky là ah non c'est grave légui nee ya yo vidéo audio la ni nee audio bu fité la Nous Ousmane Tunkara, xolal liñu ñu pour ma wax leen né seen xel dal ci affaire Ousmane Sonko xam nga li ko def Twitter la nek ki dugal mi ngi tuddu Cheikh Sen xawma affaire bi ay milliers de milliers de vues ah. nangam vues ba am commentaires commentaires lire Nous on vous l'avait dit mais vous étiez têtu comme des moutons le mensonge ne passe jamais la nuit brousse, Amin. La nuit en brousse, il revient avant crépuscule. Passez là à la maison. nit commentaire ki et après ce qui lui Sonko a commencé sans et il sera président avec ou sans on s'en fout ndeysaan euh, ki les roubeurs jigéen la xam nga je suis suñu yaay allah euh, bu Fatima suis nand na bu yag ne les dama nand na waxatul mom fa la ki ne suis euh, ñu ne euh, ne ko pas intéressant kenen ki ne ko Sénégal sénégalais manipuler Cheikh demal métier sa formation Desna. ce montage bi c'est pas professionnel qui celui-là c'est une vraie ordure il vendrait son âme pour voir le Sénégal rayé sur la carte du monde Ken ne a fena fen parce que les gens savent tay li ñuy wax ci population sénégalaise bu bees bi population bi dafa mur, population sénégalaise bi dafa ñor melul ni les populations précédentes population bi dafa ñor xom ñom ñëpp yew parce que ku yaakar ne li nga mëna utiliser pour manipuler xelu sénégalais pour nelawal sénégalais yaangi yaa ngi gend, xam ngeen man li ma gënoon yomb mooy ma ànd ak Macky Sall j'ai connu Macky Sall en 2014 bokk naa ci sénégalais yu raar yi yi toog ak Macky Sall reer bëggutuma bëgguma ci sax jaaraat mais je vous ai dit que le cas Ousmane euh, man ba léegi mënuma leen wax ne lii moo tax ma bëgg Ousmane Sonko mais xam naa ne li ma dajale ci moom yëpp ma xool ko ci doomu aadama jikko yu gën ci doomu aadama yëpp mu ngi ci waa ji donc amur bi moo sincère quoi xaw ma ndax li comprendre ngeen fi may waxee mooy mbëggeelu Ousmane Sonko dafa sincère ku ñëw rek ma ne la bëgg naa la te bëggatuma Ousmane Sonko rek dama lay nax loolu mënta nekk parce que li tax ñu bëgg Ousmane Sonko dafa sincère et sincère du du nit dugaluñu ci.

mais nag lii yëpp jaaxle la loolu mooy suñu information baa ngi jàll te ñu ngi leen di déranger bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te seen machine yi ça n'a pas marché ndax dem naa ba dégg Chirek Chirek Chirek moom ba mu jaaxlee nee na moom si gouvernement américain bi lay dem porter ma plainte moom fàtte na ne Sénégal porté woon nañ ma plainte ci gouvernement Amérique bi ba pare ma daan leen Chirek fàtte na lool. waaye na gouvernement américain pour porter plainte parce que Sénégal mais pas un problème moi je suis prêt mais délinquants et ils veulent rester à la tête de ce pays à tout prix parce que dañu mu lu dañu ragal dañu ragal ëllëg ils vont faire face à la justice ku deful dara amuloo craindre mais ce qu'on def dafa tellement que pour nous, il faut tout faire Madjambal Diagne n'est pas venu sur les télévisions pour défendre Macky Sall de non non non il défend ses propres intérêts xam ngeen ku génn lakk Dakar dem dikk ku génn di tëj tali Sénégal yi di lakk di lakk ay immeuble gouvernement kooku ban Madiambal Diagne moo ko mën a tiital ba mu naan wala man ku ñëw sama kër doo ñibbi de man ku ñëw sama kër moom lakk sama kër doo ñibbi Madiambal Diagne ku fu cat Sénégal la neex Madiambal Diagne mooy génn mu ne moom ku ñëw lakk këram doo ñibbi ma Madiambal Diagne ñun lakk nañu cent soixante bus te ñibbi cent soixante bus Dakar dem dikk lañu booy nangamtaan ndeyam te ñibbi nañu yaa ngi dégg ak leneen ak këru yeneen ministre Abdou Karim foofana dem nañu kër ñaareelam bi tàngal taatam ministre Mbaye Thiam tàngal taatam ak ñeneen ak ñeneen booy bi sàll ci buntu kërëm la taxaw mom di sop waw ku fi ñew wala nangam nangam yor jasi kay ma won la waye gis nga 1 2 3 ak xalé yi ne teul ci kawam ah teul ma jambal ga yaangi laaj sa adresse de cott <laughs> eh, de boo yee feres boo yaa ngi laaj sa adresse de ma jambal da nga bañ dugg ci lolu ma jambal dama bëgg ma wax la man man li tax ma bëgg président Ousmane Sonko li tax ma bëgg euh gaay yi dédé dédé may leen may leen ma ci wota bi léegi déglu. je singulièrement à cette jeunesse. Ah, singulièrement à cette jeunesse. oh mon dieu. prise en étau, angoissé par. Jau, non. boss. allo allo. salaamaaleykum Ousmane Tounkara waaw dama japp de dégg nga dama nek ci ci direct sama ben benn seconde lay jël. waaw waaw da nga bo nekkee ci fitna da ngay faté ay détails. waaw demal gis nga Adji sar waaw gis nga Adji sar waaw bu ngeen muusoon papam rek léegi mu génn wax dëgg bi ndax ci papam la gëna jégé ak ñi ci des. Ah. surtout lool rek la doon wax. jërëjëf merci beaucoup. bu ngeen muusoon papam léegi mu génn mu fete nekk loo wax dëgg. jërëjëf contane nañu. wa kay. voilà dégg ngeen maire bi limu wax de. maire bi jox nañu idée de. nee na boo leen jàppee faaburaama baayu aji saar takk cuccu bi ba mu dëgër ñaf ko rek léegi aji saar génn wax dëgg bi mais wax na dëgg maire bi kii mag laa c'est vrai mais c'est vrai aji saar benn nit moo ko dese ci àdduna bi parce que yaay ji ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm fa mu ne voilà indil nañu nag jural nañu doomu masiba naaru laay waaye néew la bu génn àddina te simbkat la woon mooy eh, eh, eh, mooy lamb tukku xam ngeen lamb yi lamb yi fala ko faaburaama xam nga rek faaburaama tamit jantal booy la woon nappkatu jën léegi mu daal di xam nga rek mooy loolu voilà mais bugguma cee wax parce que yaay ji dafa génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm léegi dama bëgg ndaw si li mu wax ngeen bàyyi ko xel boo leen jàppoon faaburaama téygal ndeyam rek aji saar wax dëgg et c'est vrai dëgg la ndaw si li wax c'est la vérité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 le président Ousmane Sonko mu doon président mais loolu mënu mais il faut mu def rôle ci la nekk sinon président Ousmane Sonko falu mu day day wu ñuul mu tàng jër te day wu ñuul moom tur gu rocceeku xaj na ci. ndax li nëkk ci suufu senegal sii ñoom ñi ngay gis ñuy mbër mbër yi ñëpp laa la wax li nu lekk ci suufu Sénégal sii. xam nañ ne danañ topp plateau yi di duul di duul di duul ba président Ousmane Sonko bañ a doon président mais loolu moom faat na mënul nekk sinon président Ousmane Sonko doon président ñu day day yu tàng jër ndax li ñu mëq danañ ko day suuf si mëq seeni jabar bi ko mëq danañ day lépp ci kàttanu yàlla suñu borom nag moo bind Sénégal gii ne def ab élection ba mu jàll président Ousmane Sonko bokku ci mënta ne kuloko wax kuloko meuna digal day fenn loolu mom régler nañ problème bobu leneen la wax fi mu il fallait que ma déglu jeune bi parce que je vais vous dire ah waa ji nee bënn bët euh, les larmes <coughs> du rangoñu tapet mais rangoñu nakar la parce que comment avoir un patrimoine comme ça naka ngay mën a un patrimoine bu mel un patrimoine comme ça la jeunesse vous avez la chance que nous nous n'avons pas eu a même une chance pour nous. parce que nous, nous daf ñu may ay président yoo ramené, moi et l'autre. et vous à votre tour yàlla may na leen raison pour ngeen xeex Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, singulièrement à cette jeunesse.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 n'acceptons plus ces petits présidents comploteurs. Toujours à la solde de quelqu'un, mais pas de leur pays. Nous, notre président comploteur Macky Sall, est en train de comploter au sol de Ousmane Sonko, le futur de toute une jeunesse. L'espoir de toute une jeunesse. Nous nous à perdre. xam nga sa xol yenn saay mu yegg foo xam ne il faut li la naqari génn rongoñu bànneex la bu leen bu leen dara effrayé ndax ñun dañu gëm yàlla te gëm naa ne

je vais vous dire que je suis né en 1973 les américains dinañ nga avec une cuillère d'or you were born with a gold spoon in your mouth maanaam nga juddu ak kuddu or parce que les tax américain di wax loolu moy nga juddu fekk bay bo xam yalla may na ko man lolo ma dal man ki ma kima ki ma jur wax na leen ko euh, le won alaaji gold tit lañ ko don wax le vieux ak dent d'or il a voyagé partout dans le monde et je peux vous dire aujourd'hui que peut-être yóbbu na deux mille dé déglu leen compte bi de yóbbu na plus de 2000 personnes ñu tukki bitim réew sama pap man yóbbu na plus de ñaari jouni. France li len fa gëna a sonal ci saraxu lay genn wàll gi mo len yobbu. yóbbu na plus de 2000 personnes ñu tukki bitim réew man sama papa on était très proche man tàmbali naa def business manam li ñuy ne affaire business bi may tambali def affaire j'avais 11 ans li Ousmane Sonko di tiitaroo toujours j'étais majeur de ma classe man ñi ma dëkkaloon Vélingara xam nañ ma j'étais toujours premier de ma classe buma ma deuxième it bariwul dëgëroon na bop way toujours premier sam papa bëggoon ma lool defe naa bi may am montre or j'avais 11 ou 12 ans montre or la ma jëndaloon ngi koy fatalé dix-huit carats or ak bande euh euh ki der té loolu du gouvernement musul liggéeyal gouvernement maa ngi fàttaliku bi muy gaañu 17 ans laa j'avais 17 ans man ki ñu ma tuddee député la won, ci politique la la nekkoon ba yàlla génne jëlee ko Adina Ousmane Seydi mais je veux vous je peux vous rappeler que sam papa bi muy j'avais 17 ans ba léegi tuuru ndax peut-être choc la wala peut-être xol bi dama amoon fit mais ñaanal nako. ko yenu bi samay frère bok na ci ñu wàccee néew bi ci boba la jógee Sénégal ñëw Amérique té musuma comme retourné waat je me suis fait la vie je me suis mené la vie sans pour autant xalaat ay affaire u bàyyi ay lu baye wu lu baye ma ngi liggéey sama liggéey bop di am sama terangay bop mais ce que je veux dire par là ce discours de ce jeune homme wax ji sincérité bi ci wax ji boo ko nga xol kanamam di nga comprendre ne que ñun yàlla bénir nañu ba pare ñii tiit nag xam naa yéen a ngi tiit suñu yaay yeeg suñu papi yeeg suñu mag yeeg suñu rakk yi ndax inquiétude temps yi yëpp kenn nelawul peut-être li ñu gis Ousmane Sonko tuuti démb am na ñu mu soulagé ndax tey moom am na ñoo xam ne sax ndeysaan sama benn sœur maa ngi koy tooñ ci réseaux sociaux yi la ne sama xarit la waaye tey moom ma ne tey moom nelaw nga ba yëkkati sa tànk ndax tey moom dama koy dama ko daan woo ay deux heures trois heures du matin muy jël waaye tey moom defe naa dafa sax biddanti pour vous dire combien de personnes ñaata nit la ci suñu xol yi il faut savoir que Macky Sall va essayer tout dans le monde dina va lépp pour le fi président Ousmane Sonko mais il ne va pas réussir Macky Sall il va échouer il va échouer son projet Macky Sall saa bu jógee bëgg a Ousmane Sonko bi dina ko échouer et il va le échouer des centaines de milliers de fois lolu man ma len ko garantir dina ko japp dina ko def ni dina ko def na le mais du am succès du am ndam ci li def ndax bisbu bu Ousmane Sonko xale yi ñu ko koy woyal boko ko boko il n'a pas compris parce que il est aveuglé et et et perturbé par le pouvoir Doflo loo ñi mu àndal fen nañ ko ba jommi na Macky yaa fi ne di nga gañe yaa moom réew mi yaa jàpp réew mi xale yow lañu gëm yaa poñe lii yaa poñe la ñu ngi ko koy bàkkee rek waaye billaahi wallaahi tallaahi lazim du ci am ndam dama bëgg na sénégalais yi nañu takku nañu takku xar suñu tànku tubéy pour défendre sa projet et défendre la président Ousmane Sonko billaahi yenn saay nak ma wax ak ay nit ñu lu torop projet bi ñu ne ñun ñepp dañu bëgg Ousmane Sonko ndax yow wala ndax li ndax lale ma ne leen déedéet Ousmane Sonko mom ku koy bëgg jëlal sa temps ko sa bop wala nga jël sa temps suivre suivral ko sa bop ce n'est pas seulement un discours ndax discours yomb na moy wax mais aduna dafa am discours am parcours y a le discours et y a le parcours président Ousmane Sonko bul rek limuy wax demal toppi jaar-jaaram man bu ma nekkoon historien tey ma mën laa limal lépp ci Ousmane Sonko parce que dama dem ba laajte papaam ba laajte maamam ñu wax ma Ousmane Sonko kuy maamam waaw maintenant j'ai compris ma ne maintenant je de comprendre am na lu bari loo xam ne da koy umpale waaye boo toppee jaar-jaaru Ousmane Sonko nga topp ay ligne deretam di nga comprendre ki Macky Sall manou ko effrayer ki ay fetal ay jasi ay sembi manou ko effrayer manou ko tiital parce que fi mu yegg ak li mu tegamnane ak fi jaar lolou manou ko waye yalla bour la bour bu bax te gëm yalla du tass yaakaaru toute une population déedéet mën na tas yaakaar comme ben nit tassul sax sa yaakar ben nit man na am yaakar peut-être bu dem ñaar peut-être mais des millions des millions de jeunes sénégalais innocents yalla du tas seen yaakaar déedéet mënul nekk gëm len yalla rek ragal yab yalla la nu gëm yalla nañu jël yàlla mi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu yaakaar ñu bàyyi ko ak suñu yaakaar du ko tas incha allah rabbi gaa yi maa ngi leen di jéggalu nag euh, yenn saa yi <laughs> ci biir waxtaan xol yi tooy waaye naa ambiance tuuti ak jeunes yi rek. les sénégalais. na ñaari jeune ñaar ñaari jeune naa naa maa ngi déglu. Euh, Mangi ngi déglu ben vidéo ou ben panafricain et je vais vous dire la chance que nous avons parfois beaucoup parmi nous ne le connaissent pas mais dina len indil mangi ngi vidéo ben panafricain ci suba si nii rek ci suba si nii ndeysaan mais c'est important c'est c'est à toi Ousmane Sonko c'est un jeune panafricain balen leen ma vidéo panafricain ana vidéo bi c'était là la bii la woon man la déet naa. There's naa bii la ah bii mi ngi ñëw baal leen ma benn jeune panafricain laa dégg mu def benn vidéo gars yi yónnee ma mais c'est c'est c'est donc on a chance am nañu chance bu dëkku Afrique yu bari di ñaan ndeysaan

voilà donc gars yi am na ñoo xam ne joxoon naa leen leen euh, <coughs> euh, muy bip euh, le commissaire Massering Faye defe naa waxoon nañ leen ko imbéciles yi nekk ci réew mi tey yàq réew mi tey vraiment bëgg ñoo toroxal bëgg a yàq suñu liggéey dama leen leen di jox ngeen déglu leen euh, mu doon euh, quelques mauvaises personnes euh, pour la BIP pour la BIP c'est Masserigne fay defe naa wax nañ leen ko Euh, de le commissaire Mbalo aussi, de la BIP Mbalo. OK? Après, nous avons euh, la police, nous avons Bara Sankaré, sûreté urbaine, moi qui nous avons avec Adrame Sar. Ces deux derniers, c'est eux qui sont chargés de montage des faux dossiers pour charger les opposants et les torturer. moi ñaari nit ok adrame sar, Bara c'est des personnes qui créent des faux dossiers des chargés patriotiques, qui les leen dóor di torturer di leen direct là. direct direct <laughs> montage Ousmane Sonko bàyyi na Ousmane Tounkara bàyyi na Ousmane Sonko eh, non Sénégalais yi du ñu dem il faut écouter les personnes voilà donc waa ji nee na écouter voilà donc naa ñëw fii <coughs> voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà merci merci <laughs> merci merci mon frère waaw ah, waa ji wax na dëgg de waa ji yi indi dafa intéressant waa gars euh, def bu tarzan bi li moy dampulang non wadi, ji pardonne moi mon frère oui c'est vrai je m'excuse je m'excuse mais je vais montrer les images ah machallah c'est très intéressant voilà gars li moy dampulang xam nga démb ma ngi leen ne dampulang moy affaire bobu ngay japp ak ñaari boom nga def ci xeer nga japp ko wëndeel ko wëndeel ko nga bàyyi ben côté bi xeer bi mën dem un kilomètre presque gis ngeen ko li moy dampulang donc da ngeen di ngannaayu xeer yi baxna diko di ko ak loxo mais préparez-vous gis ngeen li day faj gàcce li te bu faté las pierre gis nga pierre yi voilà li tamit bu len ko faté li lu gën la ci ngànnaay gis ngeen pierre yi laspierre yi da nga koy las pierre pourtant li ñun dañ ci ay pitch di ci rey ay choker di ci rey dañ ci daan dem rebbi donc outil yi nga xamné ne am nañ ko. te man nañ koo jariñoo dàmpulang baa ngi nii xoola xeer yi nga koy jëlee rek quelque xeer xoola buum ngay jël takk fële jël buum def euh, affaire bi ci digg bi gis nga der bi ci digg bi gis nga yomba defar préparez-vous ngannaayu leen pare leen gis nga lii xeer bi ku dal sa léppay faju lu leer laa la wax gis nga même ci affaire yi euh, cocktail yi noonu boo leen jëlee buteelu cocktail bi defar ko ba mu baax bu ndaw laa la wax bu ndaw nga jël ko def ko ci affaire bii nii bu cuir bi yaatu tuuti nga teg ko ci nga wëndeel muy saf ngay wëndeel muy saf bu naawee seen digg bi lay ne paccax day sori quoi xam nga xeer il faut nga jege nit pour nga mun koo dóor xeer il nga jege mais ak dampulan bi man ngaa taxaw fii ñoom ñu toll fële tël tël tël du ñu jege est-ce que comprendre nga fi may waxee laspierre bi tamit noonu la boo xëccee tuy xam nga laspierre

demal wuti sa las pierre wala nga wuti sa damplan nga préparer wala nga am ñaar yëpp xam nga luma la bëgg parce que tous les moyens sont bons pour se protéger ba pare ngeen yok renfort bi cœur pro population gis nga force reste au peuple ñom liñ li duggal ci bop nit ñi nonu lolu ay manipulation la que force reste à la loi loi bi ñan ñofa ne du ay nit peuple moy force parce que peuple moy fall. peuple moy folli peuple moy indi peuple moy yob donc na sénégalais yëpp taxaw taxaw bu deuguer il faut ngeen xamné paré nañu il faut ngeen taxaw am taxaway bu deuguer bu bax parce que bo len taxawé eux ils auront des problèmes ñom dañuy am problème bo len taxawé ñom ils seront dans des difficultés duñu mëna mën bo len taxawé leen taxawee ak ñom ils auront des difficultés il faut que ngeen xamné dañu séq ak ay délinquants bo séqee ak ay bandi bo séqee ak ay bandi billahi wallahi tallaay il faut faire face lolu rek mo la ci mëna a voilà j'ai compris euh, euh waaw ma ngi gis message yi mais problème bi ma am message yi nga may yónnee ci téléphone bi may waxe may may live la donc mënuma ko ubi donc ça me fait des problèmes quoi mais dina ko ubi après ma wax ak mom après légui dina ci mën a répondre ci lu bari voilà maa ngi jéggalu baax a voilà donc gars yi pour niñ len koy waxee rek euh, Ismaïla Major Fall a été hier à l'hôtel Eden Rack à Dakar avec des Israéliens au nombre de 10 en la présence de Amadou Sall, le fils de Macky Sall. Les dix Israéliens sont présentement à l'hôtel Ibikis de Giganchor. et tôt ce matin, ils ont été rejoints par Mahmoud Saleh. dama vous am information encore une fois hmm? ñu euh, Ismaïla Madior Fall Mignon Hotel hôtel Eden Rak à Dakar avec des Israéliens au nombre de 10 en la présence de Amadou Sall Amadou Sall les 10 Israéliens sont présentement à l'hôtel Ibicus de Giganshore et tôt ce matin ils ont été rejoints par Mahmoud Saleh Mamour Saleh ñëw donc Nyom Euh, ñu ngi Ziguinchor dama bëgg ngeen xam ne c'est le peuple sénégalais contre les comploteurs te billaay wallaay tallaay lazim yàlla peuple bi lay jox ndam dina metti nag duma fi toog wax leen li ngeen bëgg dégg jox leen suukar ngeen naan jaay leen ngelaw duma def loolu am na doy ndaan dina metti mais billaay wallaay dinañu am ndam voilà dina metti nag mais nous vaincrons loolu rek laa bëgg ngeen xam dina metti ku fi toog di leen wax li ngeen bëgg a dégg di leen tàccu di leen tàggal seeni ay maam duma def loolu am na doy naat duma ko def am naa doy naat under any circumstance li ma leen mën a wax mooy dina metti mais dinañu am ndam man xam naa loolu dina metti mais incha allahu rabbi c'est important euh, le bateau Aline Situé Diata. Bien Gigan Shore, mercredi 17 heures euh, bari aussi ay policiers civils il faut que vous sénégalais la jeunesse ngir ak yonent bi il faut ñu am lu ñu xam yàlla du maye lépp mu mat yàlla ni mu leen yóbboo ñoom ñëpp nim leen xëccee nii yóbbu leen Ziguinchor libéral nañu Dakar te ñun dakaar lañu soxla ñun Macky Sall la soxla Macky Sall bi yoon maa ngi leen di ñaan la jeunesse ngir yàlla cette fois si nañu dox sur le palais nañu concerté wu rek jarul maa ngi dem palais le mot d'ordre mot d'ordre ñun ñëpp nañu ne ville Sandaga waaw oh, booy def Sandaga booy looy def ville booy looy def voilà ñun ñëpp le mot d'ordre comprendre yéen ñëpp seen xarit élèves yi ak ñëpp ngeen bind booy looy def ville booy looy def Dakar booy looy def seeti sama sama cousin Medina ñun ñëpp jarul waaw nañu leen dem pale déedéet bu kenn wax loolu boy loy def ville boy loy def Sandaga ñun ñëpp ngeen entouré ngeen ñu entouré wu ci entourage bi ci entourage bi dinañu gisante dinañu xamé wante on se connaît les patriotes se connaissent à un moment donné ñun ñëpp on va marcher sur le palais ben yon rek lay doon billahi amatuñu dispositif ils n'ont plus de dispositif parce que Sénégal déjà dafa dafa ñàkk force de l'ordre te li ñu gis Ziguinchor daf leen tiital tiital boo xam ne Macky Sall xam na ne bu yóbbuwul Sénégal yëpp du mën a jàpp Sonko mais bis bu ñu jógee du ma ne bu ñu jàppee Sonko de du ma wax loolu ndax xam ngeen fi ma jëm ak wax ci du ma wax bu ñu jàppee Sonko mais bu ñu jógaatee bi yoon mes frères et sœurs on n'a qu'à marcher sur le palais billahi wallahi tallahi lu bari la ñuy am billahi al katib buñu fekk ci buntu bi wala policier wala gendarme wala wala lu mu doon billahi dinañu xejal 1 million de personnes marcher pour sur le palais de la république dinañu xejal yoon bi dañuy xàllil billahi tojal ñu billahi wallahi tallah so gisee ñuy tiré ci kaw ben nit wala ñaar ci la yem mais bo gisee des milliers des centaines de milliers mënuloo jël sa sa arme nga arroser c'est pas ça c'est pas possible c'est pas légal dans amul loi légal ci on va marcher sur le palais billahi dañuy am Sénégal on peut reprendre notre souveraineté Amen Damane. dama Medina y'en yi nek Médina ville Dakar Plateau ville y'en ñi ville yan laay waxal amna ñu bari ñu ne la bo waxe sénégalais ñu ne la tu n'as rien compris mané len yow tu n'as rien compris tu n'as pas vu Sri Lanka tu n'as pas vu Sri Lanka yow gisulo Sri Lanka gisulo Pakistan gisulo Mali Mali rek Mali Mali est-ce que xam ngeen ne mas nañu dugg ci bir palais bi fekk fa président bi met ko ba dopp bi naw xam ngeen lol Mali mas nañu dugg ci bir palais bi fekk fa président ba duma ko déggoo de duma président Yagoul. yàggul palais duma président bi waxuma la révolution yi passe. nous nii yàggul ñu Maintenant, ñu palais dem billahi même avec Ibeka, gis voyez ne boy après dañu jël dem duggi fële balaa coup d'état c'est le peuple qui a déclenché le coup d'état c'est pas l'armée qui l'a déclenché hein. c'est le peuple qui a pris le pays en otage après armée Bignon nous on prendra ce pays. Armée vous nous déclarez, déclarer ne c'est pas les généraux qui font des coups d'état ce seraient les sous-officiers ñoom font des coups d'état ndeysaan Aïssatou Diallo on souffre ici au Sénégal billahi je je sais ma soeur. Je mais wa koloban. gis Ousmane Sonko bu ñëwee ni ngeen di def mbedd Medina gis ngeen Ousmane Sonko bu ñëwee ni ngeen di def mbedd mi xale yi génn leen soko ko di soo ko laalee dinaa la dóor booy université yi ngeen génn ngeen jaar ci quartier yi ngeen jël boy yi yëpp ngeen jubal directement palais université Cheikh Anta Diop yéen a diriger révolution bi ngeen génn bu leen tàggoo génn leen rek comme ni ngeen di def toujours ngeen génn dajaloo jeunesse bi yëpp topp seen ginnaaw ñëpp dinañu yegg pale incha allah rabbi gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.